asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balaax te di leen balaax di ñaan yàlla suñu borom jéggal ñu di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi ñu ngi fii ci Touba Mbacké tey dimanche 29 septembre 2019 dëppoog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram di weeru tamxarit atum 1441 ginnaaw gàddaay yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy door activités yi nga xam ne moo jëm ci préparation màggal Touba gi comité d'organisation bu màggal gi am initiative at mu jot ñu taxawal caravane boo xamante nii day sillonné yenn bërëb yi nga xam ne dem fa ngir xeeñ jeexantelu Cheikhul Khadim ren nag ñu fas yéene ko dooree ca guy mbind guy mbind ku koy wax sa xel dina dem ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké nekkoon kenn ci doomi Cheikhul Khadim yi waaye it ki nga xam ne moo di Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké nekkoon septième xalif général des Mourides tañ denc ko foofu ci guy mbind ci bërëb bi nga xam ne ni moo di kër Cheikh Amadou Lamine Baara gi ñu fas yéene faa dem fekk fa ki nga xam ne mooy xalifa Cheikh Amadou Lamine Baara muy Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaanalaat seen Cheikh Sidil Matar yàlla yokk ay leeram taasu ci barkeem incha daañu fa amal waxtaan wu am solo mu jëm ci taarixu bërëb ba ak lépp loo xam ne jëm na ci guy mbind waaye mbokki téléspectateurs yi laataa ñuy dem daañu jaar ci Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation bu màggal Touba gi kaddu yooyu la ubbee caravane màggal Touba édition 2019 bi ak mboolem activités yi nga xam ne ñu ngi koy amal mu jëm ci màggal Touba édition 2019 kon mbokki téléspectateurs yi ñu ànd ak yéen ñu door caravane Magal Touba gi waaye dooree ko ak kaddu Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadir yi laata ñuy dem ca Guy Mbind ngir amal fa waxtaan wu am solo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki yi jàkkaarloog noonu di ñu seetaan. ñoo ngi santaat borom bi subhanahu wa taala bi la yaakaar ci Seexuna Ahmadul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli jataay bi nga xam ne ñu ngi ci waajalaat eh, karawaan bi nga xam ne moom lañuy ñuy amal ngir waajale ko màggalu Touba te di ko wax karawaan grand màggal de Touba karawaan boobu nga xam ne dox nañ ko lu toll ci juróom-ñetti at jàpp juróom-ñeenti at te mu doon kon ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Sidiel Muxtaar yal na yàlla doole ay leeram wàcc si waat ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram mu jaar nag ci Cheikh Mahamadoul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu organisation màggalu Touba waaye moo yore it kaddu xalif général kullu murit yal na ko yàlla jàppaleel boppam. mu wàcc ci commission bi nga xam ne moo yor communication ak culture te Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde ma jiite ko te di ko taxawee ak yi yëpp ñu di ko ànd ak moom te muy njiitu liggéey bi. waaye mu jaar si nag ci Serigne Modou Mbacké si moom Serigne Moustapha si moom Serigne Malick Bassine. mu ànd ko ak Serigne Khady Diakhaté mi nga xamante ne bii moom euh, Serigne Cheikh Diakhaté tindoot yi waaye bokk ci ñi saytu lépp lu jëm ci wàllu alquran ci dëkk bii di Touba. waaye fegoo ci ak sëriñ fallu si ak seen mbokkum taalibe mii di wax ak yéen Fallou Galas si la ñu feggoo ci ak Serigne Moustapha Mbaye ñu fas yéenee nag tàmbali liggéey bi tey jii euh, di euh, dimanche yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tubaab. yemoo ak sént bu njëkk ci weeru wolof ñu taxaw fii ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul bi nekk ci jumaa ji fas yéene tàmbali liggéey bi waajale ko nag incha allahu rabbi ci kanam tuuti danañ dem ci Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir mu yëkkati déclaration bi nga xam ne baaxoo na di ko def bu nu fa jógee danañ di jàll kër eh, Cheikh Mouhamadul Amin Baara fekk fa Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy xalifam Cheikh Mouhamadul Amin Baara mu ànd ak njabootu Cheikh Mouhamadul Amin di la 30 danañ daal di dem nag fa li nga xam ne moo di kër Serigne Mandoumbe fekk fa Serigne Ibra Khoudia waaye ak ki yore kàddoom di Serigne seex bintu Mbacke ak mboolem njabootu Serigne Mandoumbe gépp ñu amal fa jataay bu am solo bu nu fa jógee eh, di le premier danañ daal di dem kër Serigne Afia mi nga xam ne moom Serigne Touba ñoo bokk lépp fekk fa Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Afia waaye ki yore kàddoom di Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Akram eh, le deux incha allahu rabbi danañ daal di jàll fi nga xam ne moo di. Bambey séeréer danañ damit dëkk bi nga xam ne moo di gaat danañ def escale ci yoon wi waaye danañ fanaani incha allahu rabbi ngunjaan ngunjaan nag danañ fa amal jataay yu am solo eh, yoo xamante ne bi ñu ngi séntu na kay def waxtaan wa moo di Serigne Gana Messere Makhtar ak Serigne Khady Diakhaté bu ñu fanaanee ngunjaan eh, le 2 incha allahu rabbi bët seddi la 3 danañ jaar daaray Serigne Mbacke Madina jaar kër Serigne Mokhtar moom sëñ Abdourahmane moom sëñ Moudou Mamoun bu ñu fa jógee danañ añee si fekk fa nag Serigne Ibra Ñaamar ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo di taalibe Serigne Touba yi dëkk Xombal bu ñu fa jógee incha allahu rabbi ci la troit ji danañ daal di dem ci la wunte bu ñu fa jógee danañ fanaani Touba Toul di dëkku Serigne Abdoul Khafour moom Serigne Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta fekk fa ki nga xam ne mooy borom dëkk ba di Serigne Mame Mor Mbacke moom Serigne Abdoul Khafour bu ñu fa jógee la trois incha allahu rabbi bu ñu xëyee di la quatre danañ jaar dëkk bu ñuy wax kokki kër sëñ Mor Diouf bu ñu fa jegee nag danañ ko tëjee ji fi nga xam ne moo di Réfane Touba Réfane nag di dëkk bu mag boo xam ne Serigne Touba dem na fa foofu it danañ ko ànd incha allahu rabbi ak ñi nga xam ne ñoo ñu yabaloon doonoon suñuy kilifa di Cheikh Mahamadul Basir ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma foofee nag la ñuy tëjee karawaan bi incha allahu rabbi ci ay conférence yu am solo ak ay thèmes yu wute incha allahu rabbi kon mbokk yi lii mooy programme bi nga xam ne fas nañ ko yéene jël ren jii di ko tàmbali ci le 29 di ko jeexal ci le 4. di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ñu may ñu def ko ci bismillahi rahmani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ko ànd nag ak mbooleem organe presse yi nga xam ne ñoo nekk Touba ak ci biir réew mi moo xam muy site internet wala télévision wala rajo wala journaux buy bind ñoom ñëpp danañ ko ànd ak yéen ak rajo yi kon ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla ñuy may ñu defal ko ni ko Serigne Touba bëggee te làq ci ngërëmul Serigne Touba Eh, Serigne Touba it yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha te doole ak wéram yàggal fi mboolem njabootu Serigne Touba gépp yàggal fi Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne ci kàddoom ak ndigalam la ñuy doxee ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma ak mboolem ñi nga xam ne ñoo seq comité d'organisation bu mag Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokku jullit yi mbokku taalib yi murid yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci ndigal ak turu ak Cheikh Mouhamadul Mountakha. mi nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool tam ànd ak wér kàttanal ko ba mboolem naal yu am ci liggéeyal Serigne Touba mu mot lu ko lu kaw fii nag tey ci niñ ko baaxoo defee ci li ñuy tudde wala euh, athari cheikh ni ko Serigne lu waxe léegi muy loo xam ne bañ ko tàmbalee léegi yàgg na liñ ci jublu jubluwaay bi nag weesuwut topp jeexiti sëriñ ndax sëriñ bi fi mu jaar dafa bari ñim am lante dafa bari ñi ko topp itam seeni jeexit dafa yaatu kon ñett li seeni jeexit ñett li jeexit moo tax nag ngir màggal gi xam ne mooy dajewukaayu jul ji ak taalibe yi moo tax ñu xalaatoon at mu jot at ñu tànn génn fànn wala benn gox ci réew mi ngir bu fee bu dee barab bu sëriñ bi mas a jaar la ñu demaat fa fàttali da taxoon sëriñ bi jaar fa ak la fa xewoon bu dee barab boo xam itam ñu am lante woon sëriñ bi la mooy itam ñu defe ko noonu ñi nga xam ne itam njabootu sëriñ bi lañ wala ñu àndoonoo sëriñ bi itam ñu defe ko noonu ndax ñoom kat xamle leen mooy xam ne sëriñ Touba moo tax at mu jot dañuy tànn kenn ci njabootu sëriñ Touba tànn kenn ci bokk yi bokki sëriñ bi tànn kenn ci cheikh sëriñ Tuubaa yi tànn léeg-léeg ñu tànn léeg-léeg ci ñi nga xam ne ñoo bokk ñoom lislaam bokk ñoom réew mi ngir ku ci ne am na ci barab yoo xam ne lañ seqoon ak sëriñ bi yàgg na tere na ba histoire boo ko dul nett li di ko fàttale wala nga di ko bind bu yàggee day mujj naan lu far kon nag yéen ñi nga xam ne yéen la liggéey bi nekk ci seen loxo ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di leen soññaat ndax dangeen xam ne seen liggéey bi liggéey bu yaatu la liggéey la bu am jeexit ndax jeexit ji mooy ña ngeen di fekke ñooy dil di ko wax euh, Serigne Sidi Muxtaar am na ay yoon yoon at mu jot moom fàttali ne ma liggéey boobu ñuy wax karawaan bi de xam naa lu soxal bokk jullit yi la ndax ñoo bu fi di ko wax bokk taalibe bi itam noonu la leen itteele moo tax ren jii ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir fàttali leen ak euh, fàttaliwaate lañ seqoon sëriñ bi ndax bu màgg li xasee ba dugg day xat ba am na ci loo xam ne dañ ko mën a war a leeral luñ ko def wala daal ngeen xam ne dañu ngeen koy cantuk sëriñ bi ak ngërëm bi nga xam ne Cheikh Sidi Moussar bàyyi ko ndax ci biir ak xilaafam la liy tàmbale bi mu fi bàyyi ko itam yoon wi lépp luñ mu ci def ki fi nekk sëriñ Tuubaa moo ci sañ a digle moo ci sañ tere moo tax du ñu seq benn jéego te laaj ko ci digal daaw bi nga xamee ne yéen a ngi tàmbali liggéey bi par sens laa daal di jóg laa ko yëgal sëriñ bi leeral ko ko lépp ba xam ni mu daa demee mu jox waa ci digal yeesaar ko ren ji itam laata ñu seqwaat benn jéego demaat nañ ba ci moom laajaat ko ci ndigal mu jox waa ndigal yi kon ngeen xam ne li ngeen def ci ndigalu sëriñ bi ngeen koy def kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan itam ci barke Sëriñ Tuubaa li ngeen ci fas yéene liggéey Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba nangu. amiin yàlla ngeen ca daje ngërëmam yàlla na suñu borom aar sàmm leen ba ngeen dem ak jàmm dellusiwaat ak jàmm te daje ci ak loo xam ne mosuñu ko jàmm. ñu ngi leen koy ñaar bu baax te na ci rafet jot ndax euh, ndigal moom lépp lu ko loo xam ne euh, jiitu na ci rek yaakaar mën na caa tege hmm. kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm di fàttali itam nag. ni ñu ko daa waxee bis bis bu jëkk ci safara muy suba ci altine bi euh, lañ war a jàng alxuraan bu fekkente ne ndax weer day feeñ wala mu ñàkk feeñ comme guddi xasida rek bëgguñu woon mu nekk lu lu weesu bisu bis bu jëkk ci safar moo tax ñu jàpp ko suba ci guddi jàngu alxuraan bi itam ñu jàpp ko ginnaaw boo xamee ne ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo koy taxaw ku ci ne jot jottali ko ci ndigalu sëriñ bi bañ déggoo ci ka jiitu ci wàllu alxuraan di cheikh sëriñ Mamour Mbacke ibnu cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo koy taxaw ànd ko sëriñ Xaadi Jaxate ba ca del ko waat it mooy euh, sëriñ Hamsatu Mbacke ibnu sëriñ Soxayu mi nga xam ne guddi xasida gi mooy jëwriñ ji moo koy taxaw ñu fas fas ko yéene ànd ak moom ci penk jumaa ji delloo lépp toroxlu dellu ci yàlla teewlu Serigne Touba jàngi xasidaat bi ñaan màggal bi jàmm njëkk ci mujj ci te lépp lu ñu ci def itam day see ngërëmu Serigne Touba te dara loo xam ne mbirum àdduna la bañ ca tab bi dara loo xam ne lu dëppoowut ak bëgg-bëgg Serigne Touba bañ ca tab bi kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu Serigne Modou Mbacké si nii nga xam ne moom la Serigne Abdou Lahad tànn ci liggéey bi mu jiite ko moo ñu ko àndal jëm ñëpp di Serigne falu ak Serigne Gana Messere ak ñi nga xam ne dolliwaat nañ leen ci ren xëy na kayit yi nekk fekkuma fi ba ma mën a lim tur yëpp waaye bu ñu xasee tudd ñi ko jiite rek ñëpp tàbb nañ ci biir da ngeen xam ne sant nañ leen gërëm na leen ndax liggéey bi ñu ngi ko topp waaye gis nañ jeexe ji gis njëriñ la kon yàlla ngeen ko yàgg def day cee tawfeex day ngër ngërëm suñu Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu